Dakar ak aussi yenn si li na xam ne que mu ay candidat yi na xam ne itam ñi ngi commencé battre li nga xam ne que mu di campagne partout Euh, dans la ville waaye itam si nga euh, campagne exactement alors donc euh, je pense que c'était bien le cottage ki nga xam nekk moo di Diomaye affilié aussi ak cottage bu li nga xam nekk moo Sénégal donc fu mu toll nii li nga Dakar mi si nga au rythme justement de cette campagne électorale jëmale si li nga xam présidentielle hmm, du 24 mars à li nga xam 2024

digganteeg li nga xam nekk modi di euh, Benno Bokk Yaakaar ak kan yi nga xam ni itam ñoo fa ñoom ñoo fa daal nekk ñu si ëpp na ñi doon xaar hmm, président Macky Sall lan lay daal xaar peut-être pour daal di euh, mën euh, ñëw si li nga xam nekk modi miri donc japp ni tam fu mu toll nii nga juboo amna sa ndaxte li nga xam nekk mën jorok jarog ak Amadou Ba ak li nga xam nekk moy li dox de la paix permettre na leen pour ñu daal wëra war dissiper un peu tension yi nga xam ni itam amoon na en vue justement de cette présidentielle à tout 2024 Macky nag nee na moom dafay agir en sa qualité justement de chef de l'État sortant manam ko xamni paréna pare euh, na battre li nga xamné que modi campagne euh, sur le terrain and ak li nga xamné que modi candidat président Macky Sall nee na dina ànd ak li nga xam ne que moo di les responsables bu coalition benn bokk yaakaar te itam jàpp nañ boobule démarche du dara lu dul daal di gën a mën a li nga xam ne que mu di mobiliser waaye itam maximiser seen ay chance pour daal di war a mën a bokk si élection présidentielle yu atub 2024 daa si war a mën a génn Euh, d'office au premier tour exactement alors jàpp ni itam fu toll nii euh, directive yi nga ni itam euh, président jox na peut-être pour daal di si nga que modi campagne bi bokk na si ku nek ak gox ba nga dëkk nga daal di war a campagne pour ki nga que modi di Amadou Ba waaye itam daal ni dans la même veine le secrétariat exécutif national bu coalition bi nak dafa daal di prévu pré pré prévu manam Euh, prévoir na daal di xam ne que moo di euh, dajale euh, su lu yàggatul dara benn réunion boo xam ne itam. Euh, dañ fay daal di war a mën a li nga xam ne que moo di décliné exactement euh, ki nga xam ne que moo di Amadou Ba waaye itam ay programme comment convaincre waaye itam naka lañ ko daal di war a mën a jaay li nga xam ne que moo di askan wi ñu daal di koy war a mën a voter exactement ki nga xam ne que moo di président Macky Sall aussi ordonné na li nga xam ne que moo di la mobilisation si ay ressources nécessaires pour daal di war a mën a assurer euh, campagne bu baax jëmale si ki nga xam ne que moo di Amadou Ba alors démb Amadou Ba nak mi ngoon fa nga xam ne que moo di zaanu ko Tivaouane laata muy retourné fi nga xam ne que moo di zaanu Dakar dem fekk si ki nga xam ne que moo di président Macky Sall moom itam euh, jàpp na ni nag dina daal di li na xam ne que mu di réitéré exactement euh, liggéey bi na xam ni itam Macky Sall bàyyi na ko fi ni daal di war a mën a euh, amal li nga xam ne que di benn continuité mu nekk gouvernement boo xam ne itam dañuy daal di mën a mën a wëyal li nga xam ni itam jot nañ ko fi daal di war a mën a bàyyi exactement alors. ñu dem ci ki nga xam ne que moo di euh, Karim Wade ginnaaw ba mu daal di euh, déposé li nga xam ne que moo di benn ko requêtam fa nga xam ne que mooy zaanu ko Cour suprême euh, en vue justement daal di annulé li nga xam ne que moo di élection yu présidentielle si atub 2024 ma kon information bi nga xamni tam itam mujj nañ ko jot par ak bobu dina xamne ne que moo di rëkkee suñ ko suñu ko natango di ki nga xamne que Ayoba fay démb mom lañ daal dalon seen émission bu euh, bees dina xamne que le soir de Ramadan euh, ki nga xamne ne que di Ayoba fay mu ñuy daal di xamal que ni li nga xamne que euh, la Cour suprême va statuer exactement sur le recours. Euh, déposé euh, par les alliés euh, justement de Karim Wade moi li nga Pérez PDS et ses alliés ñu a attaqué décrit bi nga Niel.

dina si àddu nit que moo euh, vendredi 15 euh, mars en audience publique spéciale donc audience publique spéciale nak audience bo xam ne koy féké audience bo xam ne itam ku mu neex dem féké bobu dina xam que audience euh, li nga xam ne que Cour suprême dina taxaw Karim Wade et ses alliés aussi ay avocats am dina di taxaw pour expliquer exactement ana yene raison mo waral ñu fas yéene di bëgg reporter yo li nga xam que élection ba jëmi jamono donc jàpp ni itam ki nga xam ne que

Euh, la Cour suprême a décidé d'y pencher euh, pour nous daal di war a mën a euh, justement taxaw si boobu li nga xam recours jàppale ni tam ki nga xam nekk que di Karim Wade conseil conscient de ko daal di li nga xam nekk moo rejeté à maintes reprises face à la montée des rumeurs concernant les recours introduits par la Cour suprême selon lesquels nos confrères et enquête d'assignation nous ñëwaat à tous. mu a si audience spéciale bi nga xam ni itam Cour suprême bu gën a ko que amee ni li vendredi

dialogue waaye convoqué ñu exactement dina xam que modi euh, le corps électoral te waroon ko convoqué euh, bien avant dina xam ne que euh, moo 80 euh, jours en avant Madame élection ñom japp ni wala mëna am li nga xamné que modi mars euh, parce que dañoo japp ni élection da nga bëgg fat faté kutu kut amal li nga xamné que modi di élection yi ñoom nag et que li nga xamné que modi le conseil constitutionnel mi ngi persister si décision bi nga xam ne itam jël nako protégé par article L 92 euh, japp carrément que ni li nga xamné que modi justement ces décisions kenn mënu ko remettre en question maanaam kenn mënu see déposer li nga xamné que modi recours et que décision yi conséquence dafa donc ko daal di li nga xam que modi di protégé euh, par li nga xamné que modi L92 par conséquent ki nga xamné que modi Karim Wade ak ñi nga xamné tam ñu ñoom la bokkal camp ñoom jàpp nañ de plus en plus li nga xamné que modi ce sa conséquence dafay daal di wane benn attitude de mépris maanaam euh, dafa mel ni leen xaw a jéppi à leurs égards lool nak ñukay da dénoncer dénoncé si kanam yoon ak wàllu yoonal ndaxte jàpp nañ itam lu ñu mel euh conseil constitutionnel ni mu bëgg a doxalee ni bëggul li nga xam ne que moo di une élection inclusive ak transparente exactement ñoom itam ñi ngi daal di euh, euh, persister et que daal di préciser allant dans sens que ni fii ak Karim Wade bokkul euh, élection du fi am ñoom loolu leen daal di xam ne exactement en tout cas mu nekk autant de questions yi nga xam ne itam da koy daal di poser allant dans sens waaye itam leneen mooy li nga xam ne que moo di juriste yi ñoom jàpp neen Karim Wade amul qualité di ko dem yóbbu fa nga xam ne mooy zaanu euh, cour suprême ak aussi front bi nga xamni tam ñom ñoom la si daal parce que seul les candidats yi nga xamni tam conseil constitutionnel mo leen dal di retenir ñooñ rek euh, la ñu dal a mëna di war a mën a yóbbu fa nga xam ne mooy zaanu cour suprême euh, kalaame di li nga xam ne mu di le conseil constitutionnel donc cour suprême kenn ku bokku ci mom xamu la te itam Karim Wade validé wuñu ko donc cour suprême reconnaître ko en tant que pour mu daal di dem saisir li nga xam ne moo di justement cette juridiction peut être pour mu daal di war a li nga xam ne moo di

ñu leen jaajëfal bu baax a baax ànd bi saa su nekk ak li nga xam ne mooy Sénégal 5 TV alors tey li leen c'est euh, seen émission yi nga xam ne moo di euh, merci beaucoup de l'avoir suivi mais également l'ensemble des équipes en régie alors euh, merci aussi à Tafa bi nga xam ne itam moo féete woon si li nga xam ne moo di machine bi bonne suite de nos programmes en notre compagnie dans quelques instants di ngeen am la suite de nos programmes incha allah quant à moi je vous retrouve ce soir dans votre émission li nga xam ne moo di justement soir de Ramadan tay dina daal dalal ki nga xam ne que Serigne Niang ak moom dal di ñëwaat actualité tolaay mi si nu yaatu waaye itam de l'autre côté du côté de de de de de de Cap Manuel ñi xaar aussi la libération bu Sonko ak bu ki nga xam ne que moo di Bassirou Diomaye li nga xamni tam xewat na si neen dal di reprendre li nga xam ne l'antenne pour dal leen jox li nga xam ne que yi nga xamni tam mu jëna dal di wacc alors merci beaucoup encore une fois de votre fidélité